wa كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين أما بعد فيا فات اليوم يوم العيد لكل مؤمن مسلم محسن سعيد فاشكر الله تبارك وتعالى فيه على كونه سورة للنبي ولمن يقتفي صلى الله وسلم وبارك عليه الله في آله وصحبه وكل من تله wa usikum fihi wa baada wa biasmatin maxtir lakum min al axlaaqi wal aqwaal wal afaal wajillaahi taala wa xadirukum fihi wa baada wa fiali ma lam yuxtar lakum lakum huwa aljaamiu li saadaat fa tuuba liman laa yaltafitu ila gayri rabbi mulaaziman maxtira lahu min munir lubbi waylun liman qaadarahu iblisu ila ma shaa fa innahu yulaazimu ma ahza wa asa qaala tabaraka wa taala wa ma aatikum rasul fa xudu wa qaala tabaraka wa taala fa man yaamal mitqaala daratin xayran yara fa tuuba liman axada ma ata bi rasul ali bi alihi wa sahbihi salaama muti suul wa lilladi himmatuhu yartaqi ila alxayri la ila alqadari wa dayri waylun liman lam yaxud ma ata bi almutaqa alayhi bi alihi wa sahbihi salaama man jaada bintiqaa wa usikum ayyuha al ixwaan wa ci man kafaani dawil xasadi wal udwaan bi an laa tufaariqu maxtira lakumu abada fa inna mufaaraqatahu tajuru ilaykum alaman wa kabada wa anhaakum an fiili kulli ma lam yatabayan lakum kawnuhu alsawaab fa innahu mima yuwajjihu ila gayrikum al ajra wa thawaab wala tatlubu alkarama bi gayri taqwa fa inna alkarama huwa taqwa wala tatlubu al izzata min gayri al azizi al muizz bi jaahi abdihi nabiyihi wa rasulihi al aziz fa inna man adbara an illaahi tabaraka wa taala ila siwa tarakahu maa nafsihi wa hawa wa man aqbala ila llaahi tabaraka wa taala maa alwasila qaada ilayhi kullama kaana yartaqi ilayhi min aljamila yaa ayyuha nnaasu abudu rabbakum ittaqu ittaqillaa xaytu kunt man kaana yuminu billaahi wal yawmil aaxir falyaqul xayran aw liyasmut qad axbarani rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam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 allahu akbar allahu akbar allahu akbar alhamdulilahi alladi jaala yowmul iid yowma tawsia wa tafrix wal imlaaq wa tafrix wal imlaaq wasalaatu wasalaamu ala man axrajana min zulmati aljahli wa shirki wa nifaaq wal imlaaq sayidina mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi dawi lifaaq wa ala man tabiahum bi ihsanin la fi jumlati al afaaq amma baadu شيء فيه لم نشارك rahmatullah tabaraka wa taala ala ma jaada bi fii na lil muntaqa alayhi salaamaahu bi jamii muqtafi fa in hada al yowma yowmu aklin wa surbin wa itq bi fadli man jaada bi fatqi ratqi wa man shakara allah tabaraka wa taala fii fa innahu yazfaru bi kulli ma min al xayr yastafi fatlubu min allahi tabaraka wa taala fa innahu yaxfir lakum wa yakuufa ilaa xayrikum dawi turyaan wa tawajjahu ilaa rabbikum bil kitaabi wa sunnati wal ijmaa fa inna laaha tabaaraka wa taala yakfiikum man abaw fiihi al ijmaa bi jaahi dil razawaati al murdiya sallallahu taala alayhi bi aalihi dawi al ardiya alhamdulilahi alladi hadaana li haadaa wa maa kunnaa nahtadiya lawlaa hadaana allah alhamdulilahi alladi lam yattaxid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 sëriñ Saaliw Saaliw asalaamaaleykum wa rahmatulah barakatu mbokk yi sëriñ bi nee na asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mi ngi nuyu. mi ngi nuyu ñëpp di leen siyaare ci bis bi. sëriñ bi nee na mi ngi nuyu nit ñi di leen siyaare ci bis bu sedd bii. di leen baalaaq. di leen baalaaq. di leen baalaaq. te leen baalaaq tam. waaw te te siyaar beeg nuyu bi ñu jiital si xalifa roxaan Taiful Muridiya. sëriñ bi nee na siyaar bi mu jiital xalifa xalifatul roxaan Taiful Muridiya Sëriñ Mouhamadul Mountakha Mbacké waaw tekki sëñ Abou Baraka. tekki sëñ Abou Baraka mi xalifa sëñ Fallou. ak mboolem ñi ñu bokkal yoon yëpp ñu mel ni ñoom. ak mboolem ñi ñu bokkal yoonu murid bi yëpp. te toog ñu ngi toog ci toog ci kilifa yi kër gi nekk yëpp. te topp jitaayu kilifa yi kër gi ñu nekk. te toog jitaayu kilifa yi kër gi nekk yëpp rek. ak ñëpp topp ci moom rek. ak ñëpp topp ci moom. ak mboolem jullit yëpp. ak mboolem jullit yëpp. ñu ñaan yàlla daal uh, ñu yàgg yàgg ñu fekk déwén. ñu ñaan sunu borom nu fekk déwén ci mbir yi. te yàlla jégal ñu si bàkkaar yëpp. yàlla jégal ñu mboolem suñu bàkkaar yëpp rek. te nangul ñu suñu jaamu yàlla yëpp def te nangul suñu jaamu yàlla yëpp rek. ak koor gi tam yàlla ko. gi ñu doon woor tam yàlla nangul ñu ko baax a baax. te waaw ginnaaw loolu nag. sëñ bi nag ginnaaw loolu. ni ñu ko baaxoo defee rek. ni ñu ko baaxoo defee rek. xutbu sëriñ moom matal lépp la matale. xutbu sëriñ moom lépp la matale moom. waaye dafa fekk nag nit moom. waaye dafa fekk nit moom nag moom. rawatina jamono ji ñu toll nii. rawatina jamono ji ñu toll. moom dafa mel ni daal nit ñi moom da ngeen wax da ngeen da ngeen di maam daal bi euh, ñu rek maanaam euh, dañuy toll foo xam ne dafa mel ni daal mm. xamuñ. xamuñ bu bu saay na xamuñ. waaw waaw nit ñi ne nit ñi kenn danoo toll jamono yoo xam ne nii àgg nañ ci xamuñu sax buur saay na. léegi daal buur deen lañ xam. waaw buur deen daal lañ xam. waaw moom bokk moo waral nag kon bis bis bu mel su ñëwee rek ñu wax wax ci lañ. sëñ bi nee na moo waral bis bu mel nii bu ñëwee nit ñu ñu wax ci liñ ci war a wax rek. waaw ji duut baaraam ci ci xew-xew jamono ji nag. duut baaraam rek ci xew-xew jamono yi. léegi xaw mi nag ñu ngi ko tënkoon ci laay ji yàlla wax ne na waxtaan mi ngi ko tënkoon ci laay yàlla wax ci alxuraan. laa yastawil xabiis wa tayyib walaw xabiis. waaw laa yastawil eh, xabiis wa tayyib walaw ajabaka kasratu xabiis. waaw yàlla dafa wax mm-hmm. lu lu lu ñaaw daal lu bon daal lu lu mu bari bari lu mm-hmm. lu baax. lu ñaaw lu mu bon bon lu mu yéeme yéeme du tax rek mu baax. loolu xam nañ ko jamono yi. loolu xam nañ ko baax ci jamono biir. ba xam nañ baax a baax. ci ci ci ci xeetoo nag ñu ñu koy def. ci xeetu ñu koy def ñëpp. ak ci wuute wuuteeg seen seen seen seen seen seen dundin. wuuteeg seen dundin. maanaam man man wax daal ñaawteef ci moom ñëpp ñëpp ñëpp ko bokk di ñëpp ñoo koy bokk def. waaw dafa daal dafa dafa masala daal ñaawteef yi daal dafa ba daal mucc daal jafe na. dafa wax dafa mel ni ñu bari mucc ñu cay ñaawteef ñëpp ñoo maasa di ko def. dafa mel ni ku ko deful sax da mel mel ni ku ko deful sax daal dafa mel ni sax bokkoo ci jamono ji far. dañu wol ni sax dañu teg ni sax <laughs> ku jub daal la bañ. daal na sax waaw ku wala ko jiima jub rek. boobu daal lañ lañ lay kooku la ñu gis. moo tax moo tax ñi ñi xam daal dañu ne féete foofu ñoom ci wàllu googu. moo tax ñi xam ñoo ñi xam dara te leen féete foofu ci wàllu googu baax a baax. ñoom de seen biir dañoo déggoo. ñoom seen biir ñoom dañoo déggoo. ngir ngir ngir ngir lan ngir daam fu ñu dajee ñoom. ngir dafa am ñoom fu ñu dajee. ci ak naafeq. ci naafeq. benn naafeq moo leen boole. naafeq moo leen boole. wala ak caay-caay boole leen. wala caay-caay. waaw yooyu yëpp am na ci ci ñi def ci ñaawteef. loolu lépp am na ci nga xam ne ñu ngi bokk def ñaawteef waaw li ci gën a teewaat mooy dañuy dañuy jëfandikoo ceeb ñu waa ceeb ñu bari ñu jëfandikoo diine yi. bari nañ ci ñu bari dañuy jëf waa. ñenn ñi dañuy jëfandikoo diine ñu bari ñuy jëfandikoo diine ji. wala ñeen ñi jëfandikoo moomeelu askan wi. wala ñi ñenn ñi jëfandikoo askan. moomeelu askan wi. moo di li nga xam ne rek ñëpp bokk. mooy li nga xam ne rek ñëpp ñoo ko bokk. ñoo ci am. ñoo ci am ñoom ñoo jaar foofu di jëfandikoo di jumtuwaay yooyu. ñoom ñoo ñu jaar foofu di jëfandikoo jumtuwaay yooyu. di di lor doomu aadama yi. di yi. loolu taxu leen fee toog. loolu taxu leen fee toog. dina ci indi fitna ci kanam. nee na dina ci indi fitna léegi ci kanam incha allah. moo di diine yi am loo def ñuy bu mboo topp seen bakkan rek. te topp seen bakkan rek. waaw te topp ñu topp ñu lislaam nekkul ci ñoom nekkul ci ñoom. topp ñu lislaam topp ñu lii dëgg ci lislaam. kon ñooñu ne na ay naafeq lañ mën lañ leen mën a tuddee. waaw bu bu bu dee waaye wàllu adduna bi. bu dee ci wàllu adduna bi. ñi ëpp ci ñoom. ñi ëpp ci ñoom. ñenn ci ñoom. ñenn ci ñoom. am na ñenn ci ñoom. ñoo xam ne dañu leen di nga di nga kaaraange askan wi. waaw ñi nga am ñoo xam ne dañ leen dénk kaaraange dañ leen dénk kaaraange askan wi ñooñu xam ne xam nañ fi fa féete ñu nga xam xam nañ fa féete moom ndax dañ ñoom dañoo jaayante ñoom dañoo jaayante ñoom ndax ñooñu dañoo mel ni ay Baye Fall ci yoonu murid dañoo mel ni ñoom fi na ay Baye Fall la sax ci yoonu murid déedéet noonu noonu lañ xaw a mel noonu lañ xaw a mel waaw ndax ñoom dañoo jaayante ngir liggéeyal askan wi dañoo jaayante ngir liggéeyal askan wi kon na ñoom leen war moo di mhm, leen war moo di sàmm alal askan wi sàmm askan wi seen alal sàmm alalu askan wi sàmm seen seen jëmm sàmm seen jëmm sàmm seen seen seen euh, seen seen seen alal ak seen seen jëmm sàmm seen alal ak lépp lu leen di lor ak lépp lu leen di lor rek waaw ñooñu nag yëpp ñoom doxuñ noonu ñooñu nag nee ñu ëpp ñoom taxuñ noonu. léegi day day jur ci benn wàll gi man daal day saggan dafa daal dañu lay saggan. ci dañoo saggan lool. ci wàllu woowu. ci wàllu woowu. ndax ñun ndax euh, xutba muy jëriñ mooy fa nga féete. Mhm. la la ñuy dund nga wax ko. xutba moom li muy mooy. Mhm. fa nga féete. Mhm. ni dund nga wax leen ko ñu dégg ko baax a baax. ndax fii ñun li ñu dund ci ci barab yi fi ñu mooy càcc ndax barab bii li ñu fi jàmbat dëgg-dëgg mooy càcc gi ak ak lu ñu tum mbirum jàmbur. ak ak lu ñu tum mbirum lu ñu tum mbirum jàmbur. waaw loolu bari bari la bari na ci ñu koy def lool ci jamono bi. nee na si foofu loolu na bari ñu koy def fii lool. te loolu xam nga xanaa ñu ci bari ci ñi ñi def loolu. ñu bari ci ñi def loolu. ñi sàmm kaaraange gi ñi xam ne ñoom lañ dénk kaaraange gi. ñi nga ñi nga xam ne ñoom lañ euh, dénk kaaraange ñu xam ci loolu dara. war nañ xam ci loolu dara. kon nag day mel ni ñoom dañoo ànd ak ñoom ci yooyu ñuy def. day mel ni ñoom kon dañoo ànd ak ñoom ci li ñuy def. waaw loolu loolu moom lay niru. loolu moom lay niru. ndax léeg nga jox li ay firnde. ci sàcc ñu ci koñ bi. sàcc gi nekk ci koñ bi. te te du saafaraw. te du caa du saafaraw. waaw du saafaraw bu dem bu yàgg dara kàmb. waaw bëccëg dara kàmb kër ci bari la ko boole fii. te boole kër yu bari la ko boole fii. waaw la ko loolu benn la ci. loolu benn la ci. ñaareel bi mooy li mu wax léegi. li mu wax. li mu mooy mooy ñaare bi li mu wax li bi moom mooy loolu loolu da nga ji yow sax da ngay am xam nga bu wér a wér baaxut rawatina weeru koor gi waaw rawatina weeru koor gi fekkoon sa weeru koor bi dañ koy dañ koy warmaal waaw ba mu jeex ba mu jeex ñenn ñi def ñenn ñi def sa ci saggan ñi am na ñoo <laughs> ñu saggan sax bu weer euh, dañuy way maaj ñi waaye ñoom dafa daal dañu ko rakkaaju ci weeru koor bi mel dañu rakkaaju lool ci weeru koor bi ajjuma ji am na ci firnde ajjuma ji ajjuma ji am na ci firnde jumaa ji waaw jumaa ji na ajjuma ci am na ci ci ñi ci mboolem fi ñoom kenn ci sax am na kenn ci ñoom mi ngi ci mbool mi boo demee. si loolu wàññi wàññi dara wàññi dara wàññi dara. nee loolu wàññiwul dara. dara. topp loolu amul benn njëriñ. waaw jumaa ji ku ci ñëwati. Hmm. naa ko naa ko weer. jumaa ji sëñ bi nee na ku ci ñëwati. di càcc def lu mel noonu. dana ko weer càcc mu luñuti. mbirum jàmbur. waaw sëñ bi xamee dana ko weer. waaw ñu ngi fi ñu ngi ci mbooloo mi wóor mi kenn kenn fi wóor ma kenn fi ñu mbooloo mi loolu leer na ma fu toll dañuy topp ci oto oto waaw topp ci rang tam suñu nee na waaw waaye waaye di jaax jaaxaluñu nag dégg nga waaw suñu nee loolu jaaxaluñu jaaxalu leen ndax suñu tool tàmbale woon ndax suñu tool tàmbale woon suñu tool nekk bi nekk gànnaar moom nekkee gànnaar am na benn ku ñuy wax naaj yi am na ku ñuy wax naaj yi histoire boobu bu lekkoon boobu kii la waaw si waaw nee na kooku dafa ñëwoon jëblu si dafa ñëwoon jëblu suñu tool nekk taalibe ci kër gi nekk taalibe ci kër gi di muritu def lépp di muritu def lépp mi mi ngi fexeel sëñ bi nekkati yoo mi ngi fexeel sëñ bi nekk fexe na ngànnaay jaas yoo xam ne ba nga ay weer fexe na jaas yoo xam ne jaas yu ñaw ñawal ko ay weer benn benn guddi rek. benn guddi. mu ñëw di sant bëgg a a bëgg ko teg sëñ bi. benn guddi rek bëgg ko teg sëñ bi. fa fa yàlla gis ko waaw waaw waaw daal kii waaye am nu mu daal. waaye waaye daal bu yëgee moom. Mhm. dañ ko noonu noonu. nee mhm. baax a baax a baax. yamale foofu ay ay fanam waaw. waaw waaye sëñ bi rek nañ ko jégal rek. waaw loolu la ko loolu tamit bu yàggul rek. bu yàggul rek tam tam. dégg naa benn imaam ci bu dëkk Mbacke. benn imaam bu dëkk bu wax ne. sëñ Abdoul ci boppam. sëñ Ba sëñ ci boppam. am na ku euh, ñu wax ci biir dong yi am na ku nekkoon ci moom. na ci biir dong yi. koo xam ne kii si euh, si bu ko wóor na kii ci ñooñu la bokk. ne dafa wóoroon sëñ bi ne kooku moom ci ñooñee la bokk. nga xam ne sàcc waxam di ko yóbbu ci ñële. moom day yóbbu ci gaa yi. léegi sëñ bi da ko sëñ bi xam ko xam loolu sëñ bi xam loolu nag. léegi sëñ bi li ko wax li ko wax moo di. Mm, bi li mu ko wax li ko wax li xam naa li leen fi indi. xam naa li leen fi indi. léegi dama bëgg. dama bëgg.

ne kon bu njëkk naka noonu tamit euh, si di nga ki mu dégg ki mu dégg waxtaan woo imaam la mi ngi Mbàkke dégg waxtaan woo moom ne imaam mi ngi Mbàkke imaam la moom mi ngi Mbàkke tamit nee ci waxtaan woo benn benn xutba bi ci la wax ne nee na ci xutba wala wax ne Sëñ Abdou Xaadir Sëñ Abdou Xaadir nee dafa dëggal loolu. dafa loolu. nee moom dem na sax ba ci soxna yi. nee loolu dem na sax ba ci soxna yi. soxna yoo soxna bokk ci ñooña. dañuy joxe xabaar ñoom tam. loolu mu mucc na. loolu mucc kon na moom kon loolu. kon koo xam ne da ngay seet mbir. dàquñu nga def loolu sax moom. am na fu mu na lislaam loolu. ci wàllu xeex la ko nangoo. ci wàllu xeex. guerre guerre. ngay ngeen jël fee jox ko jox ko ñi seen seen mbokk. waaw waaw mu ngoog di nga jël fee ay xabaar jox ko kay loolu mu ngir ñu gañoo la loolu sax mën a nekk moom. waaw wala wala wala ku kii kii ci ñaawteef nekk ay ñaawteef ku nekk ci ay ñaawteef ñu wax ko nga fa kay ngir ñaawteef. te euh, waru leen. te waru leen. waaw man yii man yii yëpp nag dama def ci lii lépp sëñ bi nee na da firnde yu wóor kii kii loolu wax di nee na ma li mu wax di dafa dañ ko dañ ko soxla dañ koy téwoo kii ci fii la dëkk ñu dëkk ci fii soriwul waaw ñu bokk moom maa ñu bokk dëkk fii daf ne ma lii li muy wax di ñu ngi ko soxla <laughs> waaw de ndox loolu ndox ah, benn doon xaar nañu ñëw bëgg a xaar loolu daal mooy itte yi boo xam loolu daal bu gën a jàmp mu gën a teem ci a jàmp moom tey li gën a doy waar a doy moo di Euh, taskatu xabaar yi ñi nga xam ne dañuy tasaare xabaar yi taskatu xabaar yi ñi nga xam ne dañuy tasaare xabaar ñoom itam dañoo bokk ci ñooñu day mel ni ñoom itam dañoo bokk ci gaa yooyu dañoo ànd ak ñooñu dañoo ànd ak ñooñu ñoom itam wala bokk yan yan yan yan waxuma taskatu xabaar waaye ñi borom borom borom barab barab yi borom barab yi taskatu xabaar yi taskatu xabaar yi nga xam dafa mel ni dafa ànd ak ñoom ci loolu ba ñaan ñoom ci ci tappale yooyu ndax dañoo ànd noonu ñoom ci tappale yooyu jubadi googu waaw ci ñu dañoo ànd ak ñun ci jubadi googu moo di moo di lu mel ni téléphone yi ñu ngàbb ni ñi ko ñu koy artu téléphone yi ñu ŋàbb téléphone yi. ñu ŋàbb ñu ñu ko ñu ko ñu ko fi samp ci réew mi. ñu samp téléphone yi ci ci réew dafa mel ni ñoo gars yi ñoo ànd ñoom wax lan moom la wax euh, Ndodi. Ah. Oh, opérateur mobile waaw. waaw dafa mel ni ñoom dañoo ànd ak. dafa ndax ñooñu léeg-léeg dañuy gis sa téléphone jëfandikoo. ko. te yow doo xam fu ñu sa téléphone. doo xam <laughs> te la jaar waar waaw. te xamoo leen mosoo leen a xam. topp la rek. topp la waaw. tey suba fajar gi. tey suba ci fajar jot nga ci benn. waaw. waaw jumtuwaay yooyu moom xam naa ne dañoo am dañoo ànd ak gars yi daal xam naa ne ñu ànd waaw waaw bu la neexoon du fi am am na waaw su ko ah, la hmm. jub moo leen soxla jub ci bopp réew mi kon kon yooyu yëpp da nga kon yooyu yëpp fi dégg moom mooy mooy yi ñuy wax wax ne naan xaw ma dañuy dañuy nekk ci kaw sëriñ yi ñuy wax naan dañuy nekk ci kaw si nangam nangam yooyu yëpp bu la neexoon du am xam nga ci ci réew yi waaw am na ci yeneen ci réew yi. am am ci yeneen ci yi. ah man am na benn réew boo xam ne hmm. nañu. yooyu amu fa. na réew xam ne ne yooyu amu fa moom. yaa Chine Chine nee nañu. foo Chine Chine. nee na ñoom Google xam nga Google. Google waaw Google. Google kii bu américain ñoo moom. waaw américain ñoo ko moom. waaw fi àdduna bépp ñëpp ci bokk. waaw ci àdduna ñëpp moo ko bokk. waaye ne ñoom ñoo ne am fa Google amu fa. Google am na Chine moom Google amu fa. ñoom dañu Google bopp. Ah. dañoo wut seen Google bopp. waaw lu ne tur bi <laughs> waaw waaw waaw waaw. su la ñu lu lu fi neex du fi am. Ah, ñu nekk ci boppu réew ñoom. lu leen neex ci réew mi du fi am ñoom. waaw ndax ñoo doon yàlla yàlla ñoo ñu jox doole. ndax yàlla ñoom la jox doole zahir ji. waaw kon loolu loolu loolu loolu. kon nag loolu rek la moom. loolu rek la waaw su fekkee ne ay jullit dañuy wuyoo. su fekkee ne ay jullit dañuy wuyoo nag. bay bàyyi bàyyi bàyyi kii bàyyi xel jullit ñi fi nekk. bàyyi xel jullit ñi fi nekk. kon yooyu ci réseaux sociaux du kon yuy coow ci réseaux sociaux yëpp du am. wala wala sax ku wax ah, kon ku wax lu bon du jàll du mën a jàll. mën waaw. waaw man pexe yooyu dofuñ. waaw kon doo du ma jàll waaw. ñu bàyyi mu jàll. waaw ngoog. sa téléphone yow sa téléphone. yow sax ñu koy xam. ñu xam la <laughs> ñu ko jëlee. doo xam fuñ la. Hmm. da nga identifié. sa numéro kenn du ko sàcc. kenn du ko sàcc waaw. waaw waaw ci loolu rek. waaw ndax yàlla dafa doon man euh, euh, deux mille atum deux mille. atum deux mille. boobu yi bëri bëri gu foon. yi bëri gu foon booba. mooy opérateur yi bëri bëri gu foon. opérateur yi bëri gu foon moom benn feewoon. waaw muy Sonatel muy kii muy orange. muy orange waaw. ah boobu. <laughs> moom. dama ñaan. da doon ñaan. indi fi opérateur bu dëkk ci réew mi. ngir lan. ngir lan. ngir rek mu sàmmonteeg. ngir mu sàmmonteeg. Eh, mbiru jullit yi. suñu doxin. seen doxin yëpp. gi def doon lu lu nga xam ne du ci def lu noonu. Ah, eh, yàlla dogal na mais am na am na. am na te yàlla dogal na mel ne am na. am na boobu. waaw mel na am na fi. am na fi waaw. ndax xaw xaw ko nag xaw ma nu muy doxalee. xaw ma waaw waaw xaw ma nu muy doxalee waaye mu mel ne am na fi moom. am na fi dégg naa ko. waaw am na benn bu ko borom la nekk opérateur ci yooyu. waaw. waaw dégg naa ko dégg naa ko xam naa ko dégg naa ko. Mm-hmm. waaye yàlla yàlla bu ko gaa yóbbaale rek. yàlla bu ko gaa yóbbaale rek. xam ne moom <laughs> yow daal yàlla na nekk koo xam daal moom. yàlla na ne rek lu mu gis. lu dul noonu rek na daal dindi moom. loolu ñaan waaw mu ngoog. lu mel moom mi ngi ne lu moom rek lay ñaan loolu rek la doon ñaan. ndax xam nañ réew moom ñëpp ñëpp ñëppay ñëw. ndax réew mi ñëppay ñëw. waaye nag kuy ñëw da nga koy da nga koy woo da nga wax mu mu. kuy ñëw nga ko wax ci ci ci sa sa réew mi ni ñuy doxee. ci waa réew mi ni ñuy moom mooy waxtaane kon. loolu laa suñ moom mooy waxtaane moom. kon ñi foofu rek. ñu ñaan. yàlla daal dooleel ñi nga xam daal day jubal. waaw ah, ñu dooleel yàlla dooleel ñu jubal. ñi ñi jubal yàlla yàlla dooleel. yàlla dooleel ji jubal jox leen kàttan. ndax say say yu ma tudd léegi daal. ndax say say yu ñu tudd daal bari lool. am nañ doole am nañ te am nañ doole lool. dañoo mànkoo. te dama maa ngi koy tam. te foo foo xool seet leen ko. foo xool dem seet leen seet foo nekk da nga xam ne kii ci ñoom la bokk. foo nekk da nga jigéen ñi rek. waaw ay mag ñoo xam ne ay kilifa ñu tuddoo ak ñu bari rek. ginnaaw loolu li sëñ Massamba muy wax. nee na moom fi mu fi dëkk wa dëgg. waaw nee na moom fii dëkk ci koñ bi. ndox ndox ndox mi njàmbat daal la wax. ndox ndox daal la wax ne moom amu fi moom ndox. loolu loolu moom ay at ñu ngi mi ngi ñi saytu xam yaakaar naa war nañ ko xam xam waaw ñi saytu loolu yaakaar naa war nañ ko xam waaw kon na jaad na ci ñoom ñu ñu gestu fii daal ñu bu baax a baax ci dëkk bi la bokk waaw bi la bokk te bi ñu sañcee fi na waaw 2000 mil la sëñ bi wax ne la sëñ fii 2000 2000 booba léegi ndox mënu fi am booba léegi yaatu. waaw waaw dama jafe mooy kon daal ñun daal fi ñu toll dañuy ñaan daal sëñ bi nee na mi ngi ñaan bu baax a baax yàlla musal si musal si caaca yooyu waaw wax ko rek lañ waaye mucc ñoom jafe lool ndax na ñoom jaar kenn xamul fa jaar waaw xabaar yi. ñoo xam ñooy yor tamit ñooy ñooy ànd ak ñoom. waaw xabaaru gars yi. waaw waaw kon ñoo góorgóorlu baax rek. waaw ci loolu li nekk war na yàlla ci liñ caacaa gi nekk. li sëñ bi naan caacaa gi nekk. benn caacaa ci ko defoon rek nekk nekk nekk wàll yi wala. nana caacaa gi nekk. déedéet xamuñ dara. waaw xamuñ dara caacaay rek. sa saw ruj. léeg-léeg dañuy bett. dañ lay bett. bu fekkee nit ñi bari rek. dañuy muus. bu fekkee nit ñi rek. daal li ma xam daal ja. ku fi ñëwaat ci juma ja ajuma. ci mbooloo mbooloo yi nekk. ah na moom boo xam ne gisee dina la la. na nga xam nag. ñëpp waaw mën wax ne nit <laughs> ñi mbooloo bi ñu ne ñu ngi fii ci mbooloo bi xam leen baax a baax. waaw. daganul. daganul de daganul de waaw daganul de. rajo rajo mooy rajo. Eh, rajo wallaay wallaay daganul dara daganul ci de. dem jëm kanam. ñun buñ bëggee jëm kanam nañ liggéey. ngir yàlla. liggéey bu dagan. liggéey bu dagan. kon def leen lakk leen. waaw. torox ku ko def da ngay torox rek. ku ko def da ngay torox rek. waaw torox rek. waaw waaw. xam nañ ne seen tur baax a baax. waaw waaw. nañ tuub ci ci yàlla sëñ bi. bon ceeb bi dañ wax de day waaw. yéen xam xam ci yéen yow war a may kenn ci biir. sëñ bi nag kenn ci biir. wala fukk. déedéet ñoom déedéet yéen ci aji bu jëm jëm. waaw dem dem. kilifa kilifa to am yebal ñoom yebal na ñu ñu ñu ñu yebal moom mu taw na gis nga ko. wala wala wala saa la. sëñ bi xam na si dem bu baax a baax a baax gis naa la yoon ci biir jumaa ji. waaw ci xam waaw waaw. na leer cam. cam cam cam loolu sax du xaw loolu sax du ak jàccaay loolu moom ak kii la woon ak gëstukat la woon. waaw. loolu ci weer wi. waaw ngir xam-xam weer bi fu mu toll suuf su weer xam ngir nga am su weer xam eh, ci weer daal loolu gëstu daal. waaw ko ko ko nee nañ bi mu demee ci weer wi. bi mu demee ci weer wi. waaw boobu fa fa dégg nodd nodd nodd dégg. fa la dégg nodd nodd nodd. waaw déglu nañ wax nañ déglu. nee nañ waa da da da ngeen fekk kooku da da koy dimbali da dimbali rek xam ne ñun mënuñu dara incha allah mënuñu dara dara lañu na ñëwee seen seen fexe seen caay nag nañu wéy nañu dem dégg nga. sëriñ bi waaw caay caay na ñëw. sëriñ bi nee na moom. rek. sëriñ bi ci teel tuub léegi. ngir teel tuub baax ngeen teel tuub baax rek. génn ci li lay nekkee sa caay caay ngeen a baax. waaw ndax dafa benn jëm jëm ci weer wi jëm ci weer bi américain yi. ñu jëm ci weer bi waaw. waaw am na am na kenn ku demoon ci weer bi. waaw dafa ku kenn ku demoon ci weer bi. ñoom ñoom ñoom lu baax sax moom moo fi yóbbu lu baax dañuy gëstu rek xam-xam. sëriñ bi nee na dafa am koo xam ne ni ci américains yi la bokkoon waaye dafa jotoon a dem ba ca weer wa doon am lu muy gëstu. waaw ñoom xam-xam xam lañuy gëstu am na lu doon seeti. waaw waaw léeg-léeg bañ na ba nee ba ci weer wa dégg ak noddu. fa la tuubee. nee na la tuubee. américains yu bari génn ci moom nag. américains yu bari nga xam ko li li nga xam moom misaale boo doon doon gëstu dëgg. nee na kooku euh, ni mu ko misaalee da doon gëstu dëgg. ba mu gisee nag ci na ba mu ko gisee nag mu daal di sóobu. Ah, waaw li ma wax foofu rek moo di ñi nga xam ne ñoo day nekk ci li nekk nii. nee na li muy wax foofu ñi nga xamee ne dañoo nekk ci yii. ci ci eh, li nekk di gëstu mbiri jàmbur ak yooyu. Euh, di gëstu mbiri jàmbur ak yooyu. dëgganul ca loolu dëgganut. nañu xam ne loolu dëgganut. du liggéey bu baax. kon nañu wuti benn liggéey bu gën a. kon nañu seeti beneen liggéey bu gën a dagan boobu. ca barkeel barkeel nee na loolu rek la ci jublu wa nee na waaye wañu dara nee na jubluwut ci wax ji dara nee na misaal moom rek la ci jublu lu baax lu baax fi ne na lu baax ko yóbbu foofu américain kon loolu baax na nekk ci dara ba gis la gën da nga war a dem ci loola nee na bu fekkee ne ñoom dañoo

pexe yooyu. waaw ah, noonu la ñu nee na foofu ñu def ko. incha allah tubaarkàlla. nee na kon sëñ bi nee na ñu yemale waxtaan wi foofu. waaleykum wa rahmatullah mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di siyaar bu baax. di sakku ci mbooleem ñi fi teew ñëpp. ñu bokk ñaanal seex mu amadul Mbàkke mi. suñ Modou Massamba moom seex Modou Fadal. suñ boroom may ko kattan may ko ak wér. ba li muy liggéeyal seexul xaddim ca jaare ko ci waajuram mu tedd mi di seex Mamadou Fadal suñ borom jotal ko ci ngërëm li ca mu ànd kook jullit yëpp li sëñ bi doon leeral it lu ko leer nañ la ajjuma jutet mi ngi nuy orienté nun ñi fi nekk mm-hmm. ca yu mel noonu moo tax mm-hmm. kon nag ñiy def yooyu nañ ko bàyyi day wax ba sonn nee na lakk na lépp na ca ñi ca ñooñu ñi nga xam liy wax kon nañ ko bàyyi xel bu baax ñun ñi ci jumaa ji am na lu ñu ciy bàyyi xel kon nanu bàyyi xel ci loolu bu a baax mu nga mi képp koo xam ne xam-xamam dafa néew na jëw ña dem yëri téere sëriñ bi moo taxan sëriñ bi yooyu mu doon leeral keroog ci jumaa ji nga xam ne yàgg na koo def sax mm-hmm. muy tasawu di sixaar bu mu def ci wolof ngir jàpp jàppandal ko nit ñi ci la bokk képp koo xam ne dem nga yëri téere boobu di tasawu si sixaar boo ko mënta jàng ci arab sëñ bi def na ko ci wolof mm. nga mën koo jàng mën naa am gindi la ba nga bàyyi li nga nekk ah, ndax loolu safaan la kon nan ko jéem a wuti ca jàng ko ci gëstu ko ca jéem a tuub delluwaat ci yàlla képp koo xam ne jàng nga tubaab sëriñ bi def na def na tërëb suñ soñ ba ci ci jël na ko ay bënt ba tënk ko ci tubaab sama appareil bii sax mi ngi ci kon lool yi sëñ bi def na ko ngir bëgg a gindi nit ñi rek ñu xam hmm. ndax am na ci loo xam ne ñàkk xam moo ci dugal nit hmm. kon nag boo gindi koo ci xam hmm. mën naa am nga bàyyi ko kon nañ jéem a wuti téere yooyu ci xam mm-hmm. buñ xamee bàyyi ko ci tuub li nga xam ne wees nañu tuub ko delluwaat ci suñu borom sëriñ baa ngi sant bu baax waaye nu noo ngi koy sant ndax lii nga xam ne moom la taxawee ca na man ko lool ci bëggan ko kon suñu sañoon waxtu wane ñu ko am waaye ginnaaw at at mi ñaari yoon lañ ciy daje li fi sëñ bi wax nañ ko bàyyi xel ca jàpp ko ci di ko jëfe ca di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi béréb bii nga xam ne moo ne ci suñu sawu nag muy jàkka bun incha allahu taala ñoo ngi doon sàkku ci mbooloo mi fi teew ñëpp cay dégg suñu kàddu suuf sii na ci biti dañ ko war a dugal ci biir sëkk ko ñu doon sàkku ku ko man bu àjjuma ji delsee ñu bokk daje fi waxtu suba bala ñuy àgg ci dellu ci jumaa ji man koo dugal ci biir noo ngi koy sàkku ci darajaay Seex Maodo Fadal ku ko mën nañu teew si góor ak jigéen mag ak ndaw wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaw sëriñ bi nag mi ngi leen di sant mu ngi leen di sant bu baax ci di ñaanal sëriñ bi nee na sant na leen lii ma doon wax comme li mu wax léegi rek laayi biir rek moom la ci jublu waaye jublu ci leneen ak laayi biir rek la ci jublu nit nag bu nekkee ci suñu kanam di suñu imaam lépp loo xam ne xam na ne gàllankoor la ci nun mu taxaw dinu ci laayi biir loola nun ñëpp nañ ko dégg kon sëriñ bi ne mi ngi leen di sant ci teewaay bi ak yàggaay jataay bi waaye xam na ne lépp aw yi moo ci bàyyi bu ngeen fi bàyyi ko nan sax ci njub ca moytu ab safaan mi ngi sant ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullah allahuma allahuma amin amiin yaa rabbal yàlla na ko teewee déwén. kenn bañ koo wuute. te yàlla may ñu musal ñu. ca yàlla musal ñu. ca musal ñu nag. sëriñ bi ne yàlla na nu yàlla musal te musal ñu. lu doy sëkk loo xam ne dañ ko doy loo. ba ki xam ne kenn duñ duñ sox duñ doy duñ soxla woo kenn ci dara. ndax nee lu ci bari rek ñàkk koy dugal nit ñi. waaye kon yàlla na yàlla jox lu doy. yàlla na woomal lool cay woomle waaw di dimbali dimbali daal na am dimbali dimbali daal. na ñu am ndimbal cay dimbalee. yàlla na ñu am ndimbal cay dimbalee. ci bokk ci ñuy dimbalee. ci barke Cheikh Amadou Fadal. yàlla barkeel njaboot gi yëpp. ca teg ci siraatal mustaqim. allahumma amin allahumma amin amin ya rabbal alamin jërëjëf Mbacke.